الله schedule أشهد أن la Allah وبعث مقاما محمودا الحمد لله الحمد لله الخالق المدبر الملك القحار الواحد الأحد الصمد يفعل ما يشاء لا مراد لقضائه ولا مؤقب لحكمه منزل الداء والدواء مصيب من يشاء من العباد والبلاد بما شاء من الأمراض والأسقام والأوبئة وهو المهبود في كل الأحوال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله فاعلموا ان مرض كورونا قد اخذ في الموجه الثالثه في معظم البلدان العالم وفي بلدنا السنغال فتزايد عدد المصابين والوفيات في الآونة الأخيرة وبدأ يحدث تغيرات في حياة الناس الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية وللمسلم مواقف في ذلك منها الإيمان بأن كل شيء إنما يقع في الكون بقدر الله فلا يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاء وأوجده وخلقه قبل الخلائق قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ثانيا الإيمان بأن الأمراض لا تصيب أحدا إلا بمشيئة الله ولا يشفيها ويرفعها إلا الله قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وقال تبارك وتعالى في قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين ثالثا حسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه بالاعتماد عليه في جميع السؤون والتبرؤ من الهول والقوة فلا هول ولا قوة إلا بالله مع حسن الظن بالله وعدم الظأر والقلق مهما اشتد الود قال سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون رابعا وجوب الأخذ بالأسباب الشرعية الواقية الإجرائية الصحية قال عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل داء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام قال عليه الصلاة والسلام لا أدوى ولا تيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجزوم كما تفر من الأصل وقال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرد على مصح وقال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منه فرارا فمن الأسباب الشرعية الواقية كسرة الاستغفار والإنابة والتوبة إليه واجتناب الذنوب والمعاصي والخطايا فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بالتوبة قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي أملوا لعلهم يرجعون ثانياً الذكر اليومي والأدعية الواقية قال عليه الصلاة والسلام من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي آفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يقول في سباه كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم تدرك عباد الله توكلوا على الله واستعينوا به واسألوه السلامة والمغفرة وصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله ngi سانتكي ki yeeyoo سانتكو sant سانتكي ساك دي توباتو ñu ngi sàkk sant buur bi noot ñépp ñu ngi sant ki ñépp yaakaar ñu ngi sant ki def lu ko soob di atte lu ko soob lépp lu mu atte lu mu dogal kenn manu koo delloo te bépp atte bu mu tëral kenn mënatu koo topp ngir dabaatal ñu ngi sant ki wàccee feebar boole kook lay faj ñu ngi sant kii feebarloo ku ko soob ci jaamam yi ki indi jàngaro fu ko soob ci réew yi ki indi ay jafe-jafe ak mettit ci coobareem te kooku dong nag mooy ki ñu war a sant ci waxtu bu ne ñu ngi koy seedeel ne moo yeyoo ñu jaamu ko nguuram bi bokk ko ken te day def lu ko soob ñu ngi koy seedel ne ki ko doy doy nañu mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi nañu yëg ne feebar bii ñuy tuddee virus corona dellu si waat na ci troisième vaggam ci lu ëpp ci réew yi rawatina suñu réewu Sénégal nemmeeku nañ ne ñi wiris bi topp ñu ngi gën a bari ñii faatu ñu ngi gën a bari nemmeeku nañ ne dundub nit ñi mu ngi soppeeku ci wàllu diine ci wàllu politique ci wàllu économie ci wàllu social ci wàllu administration yépp gis nañ ci ay coppat ay jàqa ya rek titange waye julit bu gem yalla lan moy taxawayam ca yoya bokk na ca fexé be am gem yalla bu mat seuk ngëm yalla bo xamné dara du am ci aduna lu lu yalla soob dara du fi ñew lu lu yalla indi xamone nako bindon nako, dogal nako, application bi mo jot rek ñu yëg ko te borom bi neena amu ben jafé jafé buy am ci kaw suuf wala buy am ci bakkanuk doomu adama yi ludul man bindon nako, dogalon nako, xam nako waxtom rek mo am madal diko amal loolu lu yomb la ci man borom bi subhanahu wa taala kon loolu ñu daldi ci bàyyi xel ñaareel ba ñu gëm ne feebar bu wàcc du jot kenn lu dul ci cooba rek borom bi subhaanahu wa dina fi nekk ba am ñoo xam ne dégg rek lañ ci am du leen laal fen kon këpp laal cooba rek borom bi subhaanahu wa la këpp ku mu faat cooba rek borom bi subhaanahu wa kenn mënu koo fànq kenn mënu koo wéral Kudul mom borom bi tabaarak wa taala kiko indi motax muneñu amul bepp jafe-jafe buy am ci ko suuf ludul man yalla mako dogal way kep kuma gem nak ma jubal sab xol fessal ko imaan ndaxte man yalla ma xam lepp man lepp sañ lepp kon borom bi subhanahu wa taala leralal nañu anam bobu kon julit xolam lolo cay ne mu fatali ñu waxu ibrahim alayhi salam buma febare momay faj kon yàllaay faj amul kenn ku muna a faj yàlla yore garab amul kenn ku am garab da ngay lu rek mu dajje ndogalu borom bi subhanahu wa taala ñettel ba ci taxawayuk julit day rafetal delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala sukkandiku ci borom bi subhanahu wa ta'ala yaakar borom bi subhanahu wa ta'ala dal di weddi sanni katan katan bepp idéologie bepp man-man tek ko fele jappone tabaarak wa ta'ala momala la ñooñu dañuy lambatu rek bu dajje bu borom bi rek mu dal di wéy kon yow jullit bi li ngay fas ci sa xol moy la hawla wala quwwata illaa billah kenn xamul kenn manul kenn amul ku dul tabaraka wa kon kooku nit ki wóolu ko dellu ci moom daldi ko ñaan bu dee mbir mi la demee kon ab jullit du caalit du tiit du ragal du jàq du am lenn loo xam ne moom moo ko yëngal lu mu métti métti yooyu du nekk ci xolub jullit te dafa am iman bu deugar ne febar bi bu sobul yalla duma jot motax borom bi subhanahu wa taala wax ñu ko mu ne bi wax len ne qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa Maulana wa ala allahi falyatawakkal mu'minun na nga gem ne duma jot dara duma jot lu lu borom bi subhanahu wa taala dogal lamu dogal nak mu noko raw lo mana def do raw lala dul jot lo sagan. sagan dula jod, jot kon iman bobu la julit di am andak dal andak tekaral, andak tey lol nak ku gem yalla ya mo meuna yegg ci anam yu mel nonu ñentel bi ci taxawaayug jullit moy bepp sabab bu sharia nangu ne bo ca jare aman na nga mucc bu ko sagane taxaw ca dox ko rawatina ñi nga xamne ñoo féetee ci boor booba li ñuy wax ñu ciy bàyyi xel di ko jëfee moom yonent bi ci sabab yooyu leeralal nañu mu ne amul benn jàngaro buy ñëw lu dul yàllaa ko wàccee te jàngaro bu mu wàccee rek boole na ko la koy faj xam nga ko xamoo ko jël nga ko jëloo ko jàngaro bu mu wàccee rek boole na ci la koy faj moo xam na xam nga ko wala xamoo ko jël nga ko wala jëloo ko da ngay febar leg leg wér te fajuwoo ku faj tabarak wa taala kon yoyu motax julit julit warul warul ndax te yonent bi dina borom subhanahu wa taala jangaro bu ne wutal na lu koy faj kon fajulen way na ngeen sori lu haram jangaro bu ne bu yalla wacce wacce na la koy faj fajulen way bu len jege bu len jege lu haram mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dàqal ñu tiitaange ca nañ koy déggee mu ne ñu wallaate amul wallaate amul gaafal amul li ngeen di wax ni bés bu bon ak bés bu nii mu ne dara am ci dara ne génne ko sa xol amul mu ne waaye nag boo gisee ku feebar rawatina ràmm mu ne nanga ko daw ni ngay dawee gaynde kon gannaaw du wàlle lu tax ngay daw kon foofu ab déggin moo fa ne gannaaw du walle lu tax ngay daw virus corona ñu ne day wàlle yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ne wàlle amul te boo gisee ku feebar dawal kon lu tax ngay daw kon dégg-dégg boobu lañu war a la war a seetantal xam ko bu baax yonentu bi sallallahu alayhi mu ne ku feebar bu mu fekki ku wér képp koo xam ne mu ne dangaa feebar mu ne bul dem ci ñu wér ñi toogal berul kon waxin jooju lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñal ñu loolu boo déggee jàngaro ci béréb bu fa dem bu fekkee ne fa nga dëkk bu fa génn kon yooyu lañ koy déggee mooy pas-pas bi bul jàpp ne nit kee la wàll la bul jàpp ne virus bee ñëwal boppam la waaw sa iman yow na nek ne daa so borom bi mu ñew kon virus bi mun naa ko ñew ci yow ku ko toxal du ki mu kon ku ko toxal moy tabaraka wa taala li la wax kon loolu dàquwante wu nak febar day walé kon bepp sabab buy tax du la wal te mu dagan mu ne nang ci ti prévention bi sharia def moy bi mooy jéggulu bari looy wax astaghfirullah foo tollu rek astaghfirullah bari dellu ci borom bi subhaanahu wa taala nga tuub tuub bu sell nga bàyyi bàkkaar bàyyi ñaawteef bàyyi caaxaan ndaxte yonent bi sallallahu wa sallam leeral na borom bi subhaanahu wa taala fedd li mu ne amul benn musiba bu wàcc lu dul ñaawteef mooy waralam Juli dia ay moy moy moy moy mooy ba mu jegi dayo borom subhanahu wa taala mu ne waaye bàyyil ma len mu wacce lo xamne ne len di tital tiñal len sonnal len ñu daldi def lu wax fo tollu di wax astaghfirullah delu ci borom subhanahu wa taala tu bayi fen bayi wor bayi tapale bayi jew bayi rambaaj bayi chaahan lepp ñu daldi di ko bayi delu ci borom subhanahu wa taala borom bi ne ma teggi ko borom bi ne nag ñaawteef yi fës na ñu ngi moy yàlla ci kaw suuf ñu ngi mooy yàlla ci jéeri ji di mooy yàlla ci biir ndox mi mu ne te loolu yépp dara defu ko lu dul bi maa kasabat ay dinnaas mu ne yàlla li tax mu indi loolu mooy jëfu doomu aadama yi ñoom ñoo koy jëf yàlla mu ne sama jubluwaay ci loolu nag li yuziqahum ba'da alladi amilu ngir seen ñaawteef yi ñu def mu ñamal leen ab coono ba ñu dal di tiit la allahum yarjiun bu ñu dellu see rek borom bi dal di ko dal di ko teggi kon ñu kon loolu benn la ci prévention bi nga xam ne mooy charia ñaareel bi ak zikrul yawmi tudd yàlla yi ñu war a tudd ci subaak ngoon ak béréb bu nekk foo tolloog lu la dabak loo dégg jullit yu bari xamuñu ko te léeg-léeg jafe-jafe yu mel nii borom bi indi ko ngir ñako xamulon xamuloon ko ña ko duñ ko jëfé wéy diko jëfé loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di leral mu ne kep ku gis ku ñu nattu ku febar ba ku laggi ku dara dal nga gis ko ci sa bëtt nga wax wax ji alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman xalaqa tafdila wax joju nga wax ko ñetti yoon borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu moom du la lor wala loolu du la jot nga gis ku feebar nga wax lii yonent bi sallallahu yow mucc nga yow vacciné wu nga yow loolu moom jeex na borom bi subhanahu wa de la koy teggil yonent bi sallallahu alayhi mu ne amul benn jaam buy xëy ci suba wax lii gont ci ngoon wax lii bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim ga wax ko ñetti yon mune lam yadurrahu shay mune dala du la lor lu gatt li rek nga xey wax ko ci suba wax ko ci ngon xolal ni mu yombe mune boko defé muccu nga kan moko wax ki yalla yoni waaye ndax lolu muccu nga bobu dañ ci déggee ne doo dee ahankay sa tamut dee kenn mënu koo daw kenn du daw dee abadan waye nak la ngay tit mom man na la ci musal mune man nga wax li itam allahumma inni auzu bika min albarasi wal waljuzami wa min sayi asqa. Mune mu wax ji boko waxe itam muccu nga ñu bari xamuñu ko wuñu ko setuñu ko ñu ngi japp ne buma defé li buma démé na buma na lolu du la ci li lay moy ki jangaro bi mu koy jot kuko ci kooku ngay dellu mu musal la kon yàlla nañu musal benn waaye ñëw na ci yonentu bi sallallahu alayhi ne ko man dey biig damaa dajeeg benn jiit rek mu màtt ma benn jiit laa daja rek mu màtt ma yonentu bi sallallahu alayhi ne ko ah yow dey ngoon ba mu cangoon nga boo waxoon kàddu yi আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক lam yadul mu ne kaddu yi fekkoon càngoon nga waxoon nga ko rek jiit bi du la lor du la lor kon kaddu yi ku ko wax leneen du la lor xoolal ni mu yombee ni mu jàppandalee laajul xam-xam bu bari laajul alal laajul effort làmmeñ rek mooy yëngatu wax ko waaye nag làmmeñ ba na communiquer ak xol bi léeg-léeg it foofu dina am jafe-jafe léeg-léeg làmmiñ bi wax fekk dafa communiqué wul ak xol bi waaye bu communiqué rek danga gis ne mooy yoon mbokk jullit yi am na yeneen doxalin yoo xam ne sharia nangu na ko ñi xam feebar ak na muy wàllee di ko jàngale di ko wax kon yooyu dañ ci war a bàyyi xel bu baax yoo xam ne daa jëm ci jàngaro bii nga xam ne sariya moom ab taxawaayam ak lu mu ëppal solo mooy sàmm diine sàmm bakkan sàmm xel sàmm doomu aadama ci boppam sàmm alal loolu lañuy ñuy tuddee ya war a jiital bàyyi xel nag mbir mi fan lay mujje kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax sariya day xool luy indi njariñ ak luy dindi lor sharia da ciy bàyyi xel bu baax baax bu ñu tolloo ci jamono yi fa nga xam ne fa la nit ñi di daje mooy xam fa ñuy jaamoo yàlla la moo xam fa ñuy fàggoo dundin la moo xam fa ñuy tàggatoo la kon yooyu yépp bésug ak bérébug daje la kon ci yooyu la nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy joxoñ am ci yoo xam ne sharia moo ci jiitu bokk na ca laab loolu duñ ko waxu jullit laab na nga laab loolu moom du jullit xanaa keneen kon la nga doon def ci laab danga koy yokk la nga doon def nag ci laabu fitra danga koy yokk mooy dagg kawari naanu mustaas wat ay poqotaan wat kawarit naq lelli ay we loolu dañ ciy góorgóorlu ndaxte charia moo ko tuddeewul fitra ndaxte def lay dimbale def lay dimbale ci laab loolu boo ko deful di raxasu it ngir mucc ci yenn microbe yi day doon lu jafe lool lool lool nit góorgóorlu ci anam yu mel noonu ñaareel ba ñuy góorgóorlu ca la wax mooy soli masque sol ay mask ngir musal sa musal keneen lay génnee ci yow du la romb jëm ci keneen kon loolu mooy sababu sol masque bi boo tissolee du dem boo bébbalee du dem boo saqatee du dem booy wax ak nit du dem parce que mu ngi yem ci masque bi kon loolu mooy njëriñam nit ki di ci bàyyi xel bu baax a baax gannaaw waa docteur joxoñ nañu loolu beneen bi ko ñetteel mooy vaccin dem vacciner loolu nag problème bi mooy lan parce que charia da koo bàyyee ahlul ixtisaas da koo bàyyee ñi nga xam ne ñoo xam luy vaccin ñoom ñoo xam niñ koy defee ñoo xam njëriñ ba ñoo xam lor ba bu fekkee ne nag ñoo ñoo wuute ñun ñu ko xamul fu ñu jëm ñooñu ci seen boppu ñoo wute ci ay masaalih wal mafasid al masaalih wal madaar ñoo wuute na ci ñii ne baax na ñii ne baaxul ñii ne am na lor ñu ne root bi bariwul ñii ñii ñoom ñu wuute kon la ca des mooy lan ñi wax ne baax na buñ la convaincre demal vacciner ji ñi wax ne baaxul ñoo la convaincre toogal parce que ñun xamuñu ñoom ñi xam ñooy xaccoo vaccin bi ñëw na baax na baaxatul éliminer kan nañ ko ñii ñu ngi mars nekk waa kër docteur ñu ne kenn du ñu vacciné ñii ñu ngi campagne ne nañu dal di vacciné ndaxte looloo ñuy musal kon ñun ñi nga xam ne xamuñu côté boobu kon fan la ñu jëm loolu moo ñu indil jafe-jafe kon nañu dellu ci yi nga xam ne amul polémique mooy li nga xam ne loolu la charia tëral ñu respecté ko taxaw ca loolu buñ ko defee xëj na du ñu am ay jafe-jafe ñeenteel ba ñuy wàññi jàkkaarloo di wàññi tàncaloo di wàññi dox bu bari qadral imkaan yii yépp nag boo koy wàññi da ngay jàpp ne damay def ay sabab rek waaye kii musalaate moom kenn la mooy tabaraka wa taala loolu lay fasaale ci biir bu fasee loolu rek du am benn jafe-jafe waaye cey bu ko fasul dina mere ku ko deful dara dina ragal tiit dal di yàqule même bu ko dabul juróomeel bi mooy fexe dëgëral yaram bi nag la koy may jumtuwaay yi xeex jàngaro mu dëgër loolu jumtuwaay yi nga xam ne day xeexuk jàngaro bokk na ca di naan lu bari lool lool lool foo tollu rek na dal di naan mo xam mar nga ba maro nga boole ci itam di naan ji limo nga boole ci di naan jinjeer nga boole ci di lekk sobleeg laaj ni ko sharia tëralee mana balaa ngay dem jakka ja boole ci nag di lekk ay fruits ak ay légumes ndaxte yi ay matière la yoo xam day may yaram bi day may deret bi lu ñëw rek mu am kàttan dal di xeex moom li yëpp la jullit di def daldi nag bàyyee boppam borom bi subhaanahu wa ñu yokk ci yeneen yoo xam ne yooyu la jàkka yi laaj li ñu waxoon set loolu moo ala naafilatil kaw kuy dem jàkka boo ko ne set loolu mu ngi mel ni <laughs> yokk wax ju bari la rek waaye loolu moom sart la ci ki nga xam ne moo fay moo fay dem ñaareel ba bu fekkee man na ne ku nekk indi sajaada boppam ndaxte fa ngay sujuut bakkan gémmiñ daa jegeeg lool fa ngay sujuut est-ce que doo fa bàyyi dara keneen ñëw sujuut yóbbaale ko looloo tax buñ ko manee kuy ñëw rek indi ab sajaada boppam di ci di ci sujuut di ci julli mu dal di ci bàyyi xel bu baax am na ñu dem ba àgg sax ne bu manee sax indaale kaamil ba muy nafaree bu manee sax indaale kaamil ba nga xam ne dañ koy nafaree wala muy jàng ci portable am loolu yépp dafa bokk ci yi nga xam ne mooy fegu ba ko ñetteel mooy ñu bàyyi joxante loxo bu ñu ne joxante loxo nag akolaat moom romb nañu loolu bàyyi joxante loxo ndaxte asalaamaaleykum wa rahmatullah loolu mooy nuyoo boo joxoon loxo mu jox la loxo ci islam nuyoo goo boo ko tàllalee loxo mu tàllal la loxo nuyoo goo nuyoo il faut nga ubbi sa gémmeñ nga ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullah mu ne la wa aleykum salaam wa rahmatullah yii buñ ko defee borom bi subhanahu wa taala dinañu baaxe mu sàmm ñu aar ñu defal ñu tawfiq kon bir mi yeb moy delo ko tabaraka wa taala te ñun ñepp legi leer na ci suñu kanam ne ken xamul ken manul xamuñu dañuy lamb rek ken xamul ken manul ken waxagul jangaro bi li la ken waxagul li mo koy faj ken waxagul vaccin bi moy bo xamne ne defé ko du la dal ken waxagul ko kon ganna ken waxagul lolu mu ngi tollu ci jamono bu ñuy wër kon ku nekk nag na fexe jaar fi ko sharia jaarloo mu jubóog boromam bu ko faatee mu nekk shahid bu fi desee moo xam ne looloo soog borom bi subhanahu wa taala ngelawaay jullit du ragal jullit du tiit jullit du caalit de wóor na la ne da ngay dee kon àndal ak sa sago wóolul sa borom subhanahu wa taala nga dal di jaar ci yoon wi dégg ndigal bàyyi tere jublu ci borom bi subhanahu wa ta'ala sori lepp lo xamne moy bakar ak ñaawtif kep ku ko def rek ñun ñepp ñu dajé ca da nga tok doto deg sax lu ñuy wax ne affaire jangaro la affaire titangé la affaire lenen la waye feek ñu ngi japp ne vaccin nangam médecin nangam diw nangam borom bi de len di setan mu ne ciali ta gudu bayyi len rek kon nañu delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala allahumma aghfir lana warhamna allahumma akrimna wa la tuhinna